Wolomi, mi xëy dañ fi taxaw ci en tant que président des délégués de quartier de Anne Beller mais tamit dañuy wax au nom de toutes les notabilités yi nga xam ñoo tok ci bërb bi ak way ëmb yara ndax tamit li ñuy wax rek wa in shakartum la azidanakum yalla dafa ne bu ngeen ma santé ma dolli leen ñu wax ne tam lam yuskuri lam yuskuri ku gëremul nit do gërëm suñu borom ah mu melni aussi tamit jabot amul lu ëpp njabootam te yalla dogal na nak mo xam notabilité lañ mo xam goor nga xam mo xam jigen nga yalla dogal na ñoo uuf njaboot gi kon lepp lo xam ne def nañ ko ci njaboot gi rek ñom lañ ko defal kon ñun dañuy sante yalla bu baax di gëreum monsieur le maire di gëreum son le bureau municipal di gëreum le conseil municipal dans son ensemble barki demb

bañ ñu fi jaar ñëpp wax ko ne fii la ñu tàmbale woon actuellement fii la ñu yem yàlla na ëpp loolu des centaines et des centaines de milliers de fois yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu leen di ñaanal yàlla ma yàlla may leen tawféex defal leen sutura di ñaanal tamit sunu aan beleer gi yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla yàlla fi yàlla def sutura ak teraanga def na ko fi ba pare sax mais nag yàlla na ko fi yàlla yokk puisque bo xolé ñi nga xamné dañuy jëriñu fi ci Anne Beller ñi nga xamné Yalla def na fi seen wërsëg buñ ko fi dire won parce que dara li fi def du ni néew la kon Yalla def na fi sutura Yalla na fi Yalla def na fi teranga Yalla nako Yalla dolli yàlla na Yalla ar njabot bi té sam leen bi jaay na bina muhammad sallallahu Alaihi wasallam sulu nempante yi nga xamné ñoo tok sunu kanam Yalla na ci ay Roger Mila ay Roger Mila ah ay euh, euh, Ronaldo ay Messi yu genn ah, yu baree baree baree bëri yal yàlla defal leen jàmm bi jaay si nam monsieur le maire daal kontaan nañu bu baax quoi waaw. defe naa ni tey ñu def cérémonie bi war nañu ko delloo njukkal bi ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci commission yi. Ah. pare am sunu maire ba nga xamante ni mooy Matar Diaw di superviser la commission. ñu am ay doléances yoo xam ne dañ koy jëlee ci population yi. remonté ko indi ko biir conseil municipal wax ci defar le ay proposition mu ànd ak ay service techniques am ba tey ñu man fi toog am cérémonie subvention bu mucc ay bii nga xam ni boo leen gisee liste bénéficiaires yi nga xamante ni la la commune de Hann Bel-Air laal na couche bari bari bari bari ci biir loolu dafa am yenn ya nga xam ni rek fokk ñu wax ko parce que dañu nekk ci dëkk bi nekk ci commune Hann bel nekk ay jeunes nekk ay élus ba pare am suñuy naataangoo ya nga xam ni dañu nekk ci yeneen maires yi de grâce waa Yaraax ñun ñoo fi nekk dafa am lenn la nga xam ne bu ñu toogee nañu waxante dëgg tey dañu war a njukkal delloo njukkal ñi nga xamante ni mooy conseil municipal bu Hann bel bëri na ay communes yu fi nekk boo fa demee cérémonie subvention yi amatu fa wala ñeenti at a ngi amuñu fa kon tey bu ñu toogee di lim ba nga xam ne lu mu gàtt gàtt vingt cinq millions la tey defe naa loolu yéen ñi fi toog ngeen tàkk ñi nga xam ne mooy conseil municipal bu Hann bel parce que le maire daf fi am ñu muy àndal di tey bu ma xoolee gis les coiffeuses gis tailleur yi gis artisan menuisier yeeg ñëpp gis bàjjanu gox yi gis xale yi defe naa ni loolu dafa nekk la nga xamante ni dañu war a saluer loolu tey nag bu ñu fi toogee tey conseil de quartier yi nekk Hann bel yëpp dañuy recevoir subvention tey écurie de lutte yaa ngi nii tey bu ñuy wax ñeneen ñi nga xamante ni ñooy def arts martiaux tey waa taekwondo ñu ngi fi waa judo ñu ngi fi waa karaté ñu ngi fi

ñu ngi koy remonté indi ko ci conseil municipal bi le maire ànd ak ay service technique am def loolu defe naa du ci sori parce que maire Matar mi nga xamante ni commission bi guddeeg bëccëg da ciy daw lu ko ci maire sant rek daf koy fekk nekk ñun lépp lu ñu proposé même bu fekkee la nga xamante ni xamu ci lu bari sax dina ci ànd ak ñun jéem ñu dooleel ba bu demee ci Babacar Mbengue mi nga xam ni mooy maire aan mu def ci kon tey liggéey boobu nga xam ni commission jeunesse sport vie associative jéem nañu ko liggéey yóbbu ko ci bureau municipal ba le maire validé ko ba tey cérémonie bi bañ a am ñooñu rek laa bëgg ngeen tàccu leen delloo leen jukkal man je vous laisse la parole je vous remercie. ñu ngi remercier monsieur le maire de la commune de Hann bel di remercier conseil municipal bi yëpp di sargal di tatagal délégué de quartier yi président association yi ak président ak délégué de quartier yi li ma doon wax tout à l'heure en wolof mooy depuis que par exemple ma nekk ci biir association bi en tant que membre secrétaire général ba tey ma nekk président sur tous les plans gis naa ne maire mu ngi doon jàppale mu ngi doon waxtaan ak ñun ne serait-ce que waxtaan bi conseil bi ak ubbil ñu porte mi saa suñ ko soxlaa message sax daf ñuy répondre loolu dañoo jàpp ne sensibilité la ak tamit ku bëgg étudiant yi dem ci kanam la kon ñu ngi ko ciy remercier beneen bi ci cadre association yëpp yi nekk Hann bel mooy association yi man jox awma conseil bu ma leen jox parce que tuuti naa si mais dama jàpp ne développement communautaire liy développé Hann Bel-Air nekkul rek ci autorités yi la nekk dafa war a jaar si ñun mooy lépp la nga xam ne suñ domaine d'intervention la lépp la nga xam ne ci sa wàll la da ciy bay li nga war a bay lépp ba bu ëllëgee ku la ci fekk day xam ne côté boobu kat nooy na nekk. njëkkee suñu si monsieur le maire. vraiment ñu ngi koy nuyu di ko sant di gërëm bu baax di di nuyu tamit président association yëpp yoo xam ne ñoo ñoo fi daje tey ak présidente groupement fi féem ni xam ne ñu ñoo ngi fi encore di di nuyu tamit imam yi ak otaw yi xam tamit ñoy fi tew di nuyu tamit conseil municipal yi xam ñepp ñëpp ñu ngi fi tew di nuyu tamit encadreur yi école fo xam ne fi tew suñu wax sama wax tamit du si bëri moy vraiment tay ay waxu remercier ma xamné qui monsieur le maire. xamal comme euh, de cabinet parce que depuis 2011 2011 commence commencé voyager ba 2018 7 ans ci ñuy ça veut dire que la mairie Yobuna, sans 100 yaraax lañ jógee pour pour dem France parce que benn tournoi international loolu dafa leen ñu wax ko parce que si si biir saaxala la li ñu am ni amul benn commune bu nekk si Sénégal boo xam amna am ko fi chaque année ngay jël ay xale ñu ñu ñuy dem France de di voyage dem di di ñëwaat man mii di la wax responsable la si commune Hann Belair.

di wax tamit yabu si loolu parce que ba ñu du doolee vraiment dañ koy delloo hommage mooy euh, père Bira Diouf moom moo nekkoon président amical bi moo ko nekkoon ba ba ba 2008 yàlla def mu mu nekk mag mu ne màgget kat affaire teg naa ko sa say loxo depuis booba léegi tamit vraiment li ñu si war a def ñu ngi koy def te depuis booba léegi ñu doon jot subvention suñu première subvention bu njëkk jot 50 mil la woon boobu la maire Amadou Dia mo moo ko o jox boobu mun naa wax trois cent mille la woon maire ñëw maire baa ko méng ba mu ñëwee ba léegi ba mu ñëwee mu yokk trois cent mille mu def ñu subvention 600 mil mille mais six cent mille yooyu yokk na bu def ko subvention deux millions kon ça veut dire a dañu ñaan vraiment ñu koy sant gëm si loolu muy def te a tamit ñu ñu mën ko xam monsieur le maire Babacar Mbengue l'ensemble du conseil municipal, mesdames les présidentes d'associations, messieurs et madame les présidents des organisations communautaires de base, mon frère et ami cher Guissé, au nom de notre association, notre groupe Les Frères Guissé, je suis Nyep, je suis journalistes Mangi fait fekk at mu nekk dafa am tradition bu daan am tradition boobu nag lu ko dindi tuuti mooy monsieur le maire Babacar Meng et son équipe en général boo demee ci code des collectivités locales subvention yu ñu daan joxe démb ak c'était destiné uniquement aux associations sportives mais depuis un certain temps c'est devenu une tradition et une routine dans notre commune ici on organise et on donne des subventions à des organisations communautaires de base qui méritent largement cette distinction pour leur reconnaissance et leur travail qu'ils sont en train de faire tous les jours. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, chers amis sportifs, chers amis du mouvement communautaire, parce que quand je parle de communautaire, je fais un coucou à mon petit frère Matar Ndiaye, qui est un spécialiste, qui est un soutien de taille, Matar, je tiens à le préciser. Entre Babacar Mbeng ak man da nga ciy dox jàmm di ci wax jàppale ñu yàlla na la yàlla jàppale. li am solo Tay, mooy xale effectivement bërki Dembe, bi ngeen doon dem man maa leen jox drapeau bi fii oote nit ñi boobu maire nekku fi. ñu ñaanal leen imam ñaanal leen ngeen dem indiwaat coupe bi pour la deuxième fois mais ça va, il y a une clé clé de la réussite à l'équipe française qui vient d'être trop au au toit du monde malheureusement malheureusement Sissé Cissé et Augustin Senghor ne sont pas venus à anne Bel-Air c'est la seule raison qui explique que effectivement a na de mais il y ne incha de dina ñëw tey nag damay sant ñëpp parce que gagné lolo. barki demb bi Moussa Ndoye di beuri ji gisone ngeen engouement bu am engouement bu amone bi kat moko indi moy Babacar Meng ak équipe municipale bi Moussa Ndoye dem bëre daan ñibbisi ñu fes ñu fete ko barki demb ñu sarkaal ko gi kon bobu aussi itam bu ngeen toogee chaque année ñu ni dañuy rawante gal kan moo jiite équipe gor gui cierno Thierno gor gui maye ak magu dekk bi kon jërë ngeen jëf. samay sët lañu <laughs> sët yi nga xamante ñoom laa jàkkaar lool di leen ñaanal ñu nekk ay mag yu tekki ndax nag wax dëgg yàlla koom te monsieur le mi ngi def effort di suqali population Hann bel kon te dañu war a suqaliku te bu nu suqalikoo rek lépp mën na fee génn yal na leen yàlla yokkal ay ndombay tànk yoo xamante ni bu ëllëgee fii monsieur le Tek tankam di ngeen ko fi tek mané waangi nuyu nak sama mbokk yi jigen yi ñi nga xamanteni ñom la andal di liggéey surtout ko rawati rawatina wa comité consultatif de Hann ndax defé na ni suñu ma joxé cadeau yeen yeena tax te su ngeen ma fa bayyi won ma wéet kenn duma xamé ba di jox cadeau te yit duma am luma wax waye akama am luma wax waye dama koy

ñu wuy si ko dafa neex depuis ay ati ati ati at lu ëpp ñaar fukki at ñu ci géew bi ak suñuy moroom ñu leen di teewal fu ne ñu leen di invité fu ne ñu leen di teral fu ne mais ñun ku ñu teral moom mooy mais dafa kaw rek waaw donc dañuy wootee mu ñëw wuy si lu mu guddi guddi dafay toog keroog ci dimanche bi la ñëw suñu programme toog seetaan concert bi ba xaw naa ko gis sax yooyu ma yaakaar ne ay yoo lay dàkk nekk jaabiraane woon quoi xaw naa yaakaar ne ay yoo lay dàq quoi ndeke boobu boobu fekk jaabiraane boo doon naaw quoi donc jërëjëf di di ngi remercier ak sunu waxtaan le directeur de la culture donc lépp lu ñu am ci lu baax ñu ngi ci xalaat te dañ ci kontaan

di leen sant di leen gërëm dëkkandoo yi donc kontaan moo tax ñu ñëw am benn prix nag boo xam ne prix boo xam ne suñu festival bi la am nañ benn xaritu ministre bu jógee ba Congo ñoo fekkee festival bi ñeneen ak ñeneen ñu defal leen trophée dañuy def ñooñu nag bàyyi trophée monsieur le maire donc Makhtar année 2000 voilà trophée bi moo nekk noonu lii symbole la ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp ku fi teew ci turam ak santam di nuyu bu baax a baax suñu kilifa yi di délégué de quartier di imam di notable yi di nuyu bu baax a baax suñu jigéen ñi di nuyu ñi nga xam ne suñu ay doom lañ di nuyu waa commune bi yëpp euh, man xam naa ne tey sama kàddu du mën a bari ndaxte li nga xam ne mooy kàddu cérémonie bi mun naa ne kii di Matar Diaw di premier adjoint au maire doon piloté lépp loo xamante ne lu ñu liggéey la dafay loo xamante ne ci loxoom la tegu woon waaye nag li tax ma ne kàddu gi du mën a bari man sama kàddu fenn rek laa koy jëmale dama koy yóbbu ci

mais pour les gisee effort yi nga xam commune mi population c'est parce que yàlla daf ñu defal la nga ci ak donc conseil municipal sans exception dama leen di remercier di leen féliciter di leen encourager ci effort yi nga population yi li am solo dama koy faral di wax ñun ñëpp ku ci nekk représentant population la ku ci nekk représentant wu mën ben ne benn couche population la mais bu fekkee ne dañu dajaloo fii ci conseil municipal war a jël décision yoo xamante ne dafay décision yu am solo damay faral di wax ne voter budget baax na mais dafa am ñaar ci vote budget vote budget prévision kese la maanaam loo sóor la mais li ci ëpp solo moy cérémonie yu mel nii nga xam ne dafa am lu ñu voté woon ñu budgétiser ko préfet daal di ko approuvé ñun ñu daal di ñëw matérialiser ko donc lii nga xam ne dafay liggéey boo xamante ne conseil municipal mi ngi koy def man mën naa ko wax ndaxte bu ma demee sama xalaat rek bari na association yu may toogal ñuy wax bëgg nañu lii bëgg nañu leneen dama koy déglu mais bu ma ñëwee biir conseil municipal parce que dafa baax aussi yéen population ñu expliquer leen ngeen xam conseil municipal nu muy fonctionner man conseil municipal ñu ne war nañu financer association yi ñu daal ko valider dafay doon loo xamante ne wax dëgg yàlla dama ciy sant gërëm ñi nga xam ne collègues lañ jamono ji ñuy toll ñi financer 62 associations Le budget bi boo c'est prévision c'était 30 millions mais tey ñi ngi joxe fii. 31 millions 700 suba inshallah il 10 millions yo xamantene dañ koy lu lieu de culte parce que ku nek commune en war nga commune bi 42 mosquées 42 mosquées te mosquée bu ci nek boy defar ay travaux 000 de maire mu ci mais 42 mosquées en tant que maire mosquée bu ci ma acheté 1 million ou 500 000 Ce ma mën mooy toog ak sama collègue yi ñu ne leen nañu seet ci lieu de culte yi lan nañ ci war a def yàlla def na centre la ma a confirmé que effectivement virement bi dugg ci compte bi donc y a 10 millions yoo xam au niveau des 42 mosquées de an ku nekk ci commune Hann xam particularité commune Hann ak histoire Mariste nga xam ne Mariste ñëpp ñëkk a dëkk mooy église catholique bi ñu toogee waxtaan ak suñu collègues yi municipal municipaux yi ñu ne ah am nañu église bi gën a mag bu ñu war a tabax muy Sainte Joséphine Bakitaan bañ ci waxtaan ak collègues yi ñu ne jël nañu 5 millions def ko ci biir église bi donc loolu aussi dafay loo xamante ni ñu ngi ci formalité yi donc c'est véritablement pour rassurer rek population yi ci mairie na muy liggéey nit ki mën nga tok amé sa xalaat mais sa xalaat boko amé amee dañ koy eggee fa ko wara éggé moy conseil municipal mo xam te dafay jël sa doléance bu ñëwé conseil municipal ñu tok di waxtaan ñu né ah bëgg nañu def li ñu mën ko sóoraale ci biir budget bi té lo prévoirul mënoo ko dépenser lo prévoirul mën nga ko dépenser man mun naa am sama yéene beneen collègue am ko mais daal li ëpp solo mooy liggéey bi nga xam ne dañuy sentir suñu bopp ci biir association yi nga xam ne ñu ngi ci. donc cher collègues Matar Diaw dama lay remercier remercier Altine le bureau municipal. vraiment pour jeexal mooy dama ko doon jëmalee ci ñi nga xam ne mooy samay collègues di conseil municipal parce que population dafa war a xam li nga xam ne mooy force commune force commune d'abord mooy unité mais unité bi moy d'abord ñu travailler à ce que équipe municipale bi fi nek doon ben te bu ñu équipe municipale dama kay faral di wax man Babacar maire de la équipe municipale bi fi c'est le conseil municipal de anne bel du ben équipe wala ben maire wala ben élu bo xamante da nga man maa ngi nekk Yaraax maa ngi nekk Malis maa ngi nekk Hann Village wala maa ngi nekk Colobane kooku c'est révolu benn équipe moo fi am mooy Hann bel lépp lu ñuy def na doon loo xamante na dem Hann bel lépp luy préoccupation wu Hann bel na ñu ñëw waxtaanee fañ ko war a waxtaanee mooy fii ñun dañu ubbil suñu bunta ñëpp li may wax nag lenn la ñaar moo am lépp loo xamante ne seen préoccupation la mën ngeen ko wax mais li ci ëpp solo mooy la nga xam ne moom la ñu mën. mu bokk ci suñu compétence dañ ko war a def waruñu waruñu en tout cas am obligation def ko te duñ ko def donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di félicité tout Hann Bel-Air yàlla nañu yàlla sàmmal suñu commune bi suñu mag yi suñu bàyyi yàlla na leen yàlla sàmm gën leen dëgëral en tout cas personnellement dama koy faral di wax content naa torop et je suis très très fier di servir population Hann Bel-Air ñu ngi leen di gërëm di leen sant